aousubillahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisaani yafaw xawli baxdal azbala wa baxdal la mbokki jullit yi mbokki taalibe yi noo ngi leen di siyaar bu baax te di leen baalu wax te di leen baal àq eh, te jéggulu ñëpp di ñaanal Cheikh Mouhamadoul Mountakha sunu borom guddal fanam te wéral loolu ay cëram waaye di ñaanal Serigne Amdi Modou Mbenda sunu borom bàyyi ko fi ba naal yi mu naa la liggéeyal mu defe ko kem kàttanam waaye noonu la ñuy suñu bunt suñu la di Sëñ Modou Basir moom Sëñ Modou Moustapha Falilou suñu borom dolli ko kàttan moom yàggal ko fi moog seen jiile ak seen mutada ak njabootu ak seen Modou Basir leen gépp bu ko defee mbokki jullit yi yéen fenn ci barab yu sell yi nga xam ne baaxoo nañ faa ànd ak yéen muy Waadaan Sugu di dëkk Serigne Jéeri Waadaan euh, tey di bisu màggal goo xamante ni ñi ngi ko fi amal ñu taxaw ak kenn ci njaboot gi ngir mu ñëw ci li nga xamante ne ni mooy cosaanu dëkk bi li waral sëriñ bi sànc fi li waral njaboot gi nekk fi waaye li waral it bis bi nga xamante nii moom la ñuy def ci bis bi incha allahu taala ci loolu rek la ñu koy laaj ci uh, yenn question yi incha allah mu répondre ko ba ñu mën leen a dégtal li nga xamante ne mooy xawee fii ci waa waadaan waaye it ngeen mën fee jàngatee lan mooy taarixu daan ak lan moo tax dëkk bi am ak la nga xamante ne ni mooy sabab bi incha allahu taala jëriñ ginnaaw boo nuyoog mbokki téléspectateurs yi rek nga fàttali leen tur rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli seex bi ñu ngi lay siyaare bu baax a baax di la jox sa wàccuwaay te nag ñëw nga ci barab bu sell barab boo xam ne sëriñ Jéeri Waadaan sugu ci boppam fii la nekkoon bi mu fi jógee sëriñ Bàmba sugu mi nga xam ne moo nekk toog jataayam di première xalifaam moom la ñuy defal bis bi tey jii bi mu fi jógee mille neuf cent vingt-deux Euh, euh, dem sëriñ Serigne ba nekk euh, toog jataayam ba quatre-vingts tey moom la ñuy defal bis bi di fukki fan maanaam ci rajab bi waaw bi mu fi jógee tamit Serigne Warane Sougou di taawam di ko taxawee ba nu mu fi jógee ñaan ànd ak suñuy jëwriñ suñu sëriñ Serigne Xaadim Sougou mu nekk feek moom yàlla na fi yàgg lool tër tey moom la amal bis bi. Serigne Xaadim lañ koy àndal yàlla na fi yàgg lool tamit ñuy siyaare tiir kenn ci mbokk ñi nga xamante ni mooy Touba Vision muy sëñ Waadaan féete diwaanu bitim réew moom it di nit koo xamante ni nit ku bokk ci liggéey bi la tax na sax ñu teewaay bi daanaka suñu jëm yi bu fi teewee moom lañ ko defal ñu koy nii baax di ko siyaare waale au passage di siyaare bu baax ab euh, Ablaye Seye mi nga xam ne moo nekk Touba Vision itali moom it di fa amal liggéey bu am solo bi nga xamante ni moom la ñu ànd ak saa su nekk euh, kon bu ko defee bis bi bis bu bis la boo xam ne at mu nekk waaye fii lay amee. fii la it njaboot gi di dajewaat moo xam mbokki taalibe yi indi siyaar ñu indi addiye moo xam mbokk yi nga xam ne mbokki deret lañ di fi daje di fi saafonte waaw seex bi comme noonu nga ko waxee rek bis la boo xam ne ñun dañ koo fonk lool ndax euh, comme ni ma la ko waxee rek ci tàmbali bi sëriñ Bamba mi nga xam ne moo njëkk euh, teewal sëriñ yi nekk jataayam fii ci waadaan gi moom lañ koy amal di fukki fan ci rajab bi waaw bis la boo xam ne tamit dañ koo ànd ak suñu kilifa di xaari mu Sëgu waaye bis la boo xam ne tamit dañuy dajewalaat mbokk geeg taalibe yi yeesalaat ak jaayante ak pas-pas ci kër ci kër sëriñ bi waaw moo tax sëñ bi at mu jot da koy woote moo tax at mu jot dañ ci soññi mbokki taalibe yi di ko di leen ko fàttaliwaat waaw ndax li bis boo xam ne ñun dañ koo fonk ndax sëñ Waaraan mi nga xam ne bi fi sëñ Bamba jógee moom mi ko doon def da koo fonkoon ba nga xam ne bis bi ni mu ko daan taxawee ak lim ci daan daj ñun ñu ëmp ñu bi mu fi jógee te ki nga xam ne mu suñu kilifa tamit gis nga ko saa yu weer wi teroo rek daanaka amatul benn yittalul bis bi waaw kon bis bi daal sëriñ bi ci gàttal daal loolu moo tax ñu koy taxawal. loolu moo tax ñu koy taxawal bis bi nan lay dooree day doore ci njàngum alxuraan doore ci nangam nangam ba ilaa guddi incha allah nan lay dooree ak nan lay dox. waaw comme ni nga ko waxee rek bu ñu xëyee dañuy jàng alquranul karim ci taxawaay sëriñ Abdou Lahad Sougou moom mi nga xam ne rakk la ci sëriñ bi at mu moom moo koy jiite ak mbokk taalibe nekk ci tund bi yëpp ñu ànd ko moom waaw noonu lañ koy taxawalee buñ demee ba ci kanam nag ba bëccëg bi bernde yi dana ñëw buñ demaatee ba ci biir nag daayira yi dinañ siyaare ñu jóge Touba ak ñu jóge Dakar ak fépp mbokk taalibe nekk rek ci tundu kajoru rek da nga daal di ñëw ak bitim réew ñëpp dinañ siyaare maanaam yeesalaat seen pas-pas ci sëriñ bi sëriñ bi daal leen koy nangul waaw noon daal lañ koy taxawalee ci bëccëg bi. daal lañ koy taxawalee ci bëccëg mu mel ne bis bi buñ demee ba nguddi gan ñi nga xamante ni ñu ngi fekk si sëñ xaadim dafa mel ne lu mel ne cérémonie officielle dina fi am wala lu mel ne jàllale discours mbaa message boo xamante ni dina soññiwaat taalibe yi waaye dina tax ñu jaajee ko mën a xam lan mooy seen diggante ak sëriñ waaw comme noonu nga ko waxee bu ñu demee ba bëccëg bi jàll bu ñu demee ba ngont comme loolu nga wax noonu ci wàllu cérémonie bi sëriñ bi maanaam comme noonu ma la ko waxee bu recevoir daayira yi ba pare dina am message boo xam ne daan na ko jàllale ci mbokku taalibe yi waaye comme ni nga ko waxee bu ñu demee ba guddi gi tamit programme bi day continuer ndax jàngu xasida gi mi ngi fi ak rajas bi ak zikrullah yëpp dinañ ko continuer ba programme bi continuer noonu lañ koy continuer daal. am na jàngkat boo xam ne mooy fanaane guddi waa at mu jot am na jànkoot boo xam ne ci kër gi la dëkk hmm. ñu koy wax Serigne Bamba Gueye hmm. bu Daaru Musi moom moo koy taxaw waaye nag am na yeneen jànkat yoo xam ne ñu ngi biir Touba ku ci mel ne Serigne Bamba hmm, ak Serigne Touba Ndiaye ñoom ñëpp ñu ngi fi ak yeneen jànkat yoo xam ne ku ci mel ne Serigne Massamba Diop bu Njaareem moom it mi ngi ci bis bi daanaka at mu jot day teew waadaan gi moom it ci jànkat yi la bokk waaye bu ñu nee ba fajar gi tamit maanaam Serigne bi tamit dina jàllalewaat tamit beneen message boo xam ne dina waan bokk taalibe yi ju gën a góorgóorlaat waajalaat déwén waaw noonu daal waaw lool ci fajar gi lay doon kon loolu li ñu ci jànge mi ngi mel ne sëriñ bi xam na li ko booleeg taalibe yi ndax bu dee dina xëy wax ak ñoom bëccëg gi mu wax ak ñoom waaye fajar gii balaa ñoo dellu nga xam ne fa lañu war a ko mu waxaat ak ñoom kon daa mel ne moom xam na li ko li ko li ko booleeg taalibe yi est-ce que kon du liñ ciy waxaat mooy taalibe yi xam li leen booleeg sëriñ bi ñoom waaw comme noonu nga ko waxee rek taalibe yi moom saa su ne dañuy gën a yeesalaat seen jébal ci sëriñ bi nag sëriñ bi tamit dana nanguloon waaye nag dina leen jàjjiwaat nag soññiwaat leen ñu jàppaat fi nga xam ne fi lañ bokk muy waadaan gi rawatina kër sëriñ Bamba Sougou moom mi nga xam ne ñi fi teew ñëpp mooy kër mooy seen bunt ci kër sëriñ sëñ jéeri comme ni ma la waxee ci tàmbali moom mi nga xam ne moo njëkk a toogaayu jataay sëñ jéeri waadaan moom dafa uufoon njaboot gépp waaw ku ne li war ci yow mu def ko kon moo tax bisam bu ñëwee daana da koy ànd ak njaboot Cheikh jéeri waadaan gépp dañuy ànd ci bëccëg bi di siyaar waa kër Serigne Ahmadou Tasrif dañuy ñëw waa kër Serigne Bamba Dior waa kër Serigne Touba Sougou ñi ñëpp dañuy ñëw ànd ak Serigne bi ci bis bi jàppale ko te xam ne ñoom bis bi seen bis la moo tax daanaka dañuy bàyyi seen yitteeg lépp ñoo déedéet sëriñ bi daanaka euh, njabootu Cheikh Diéry na Sougou gépp dañuy ànd ak moom ci bis bi ndax lépp bis bi euh, euh, lépp bis bi tegu ci yoon rek ndax comme ni ma la ko ci tàmbalee Serigne Bamba mi nga xam ne moo njëkk a ndekk xalifa Serigne Jéeri Waadaan dafa uufoon njaboot gi moo tax bisam saa yu ñëwatee ñoom ñi bokk ci waa kër Cheikh Jéeri Waadaan sug yëpp dañuy bàyyi seen yitte ñëw ànd ak Serigne ci bis bi. ànd ak Serigne bi ci bis bi muy la am am solo mbokk mi seetaan tax dégg Serigne Jéeri Waadaan sug dégg histoire lan nga ko mën a wax ci moom ngir mu xam ki waral ki nga xam ne kenn ci njabootam moo waral bis bi lan nga ko mën a wax ci seen Jéeri Waadaan mooy kan ak fi mu jaar ak Serigne bi. ndax lu mel noonu day baax a fàttaliwaat nit ñi di leen delloowaat ginnaaw ñuy gën a amaat reconnaissance ci ci ci mag ñi nga xamante ne nii jotoon nañoo jëflante ak seen mag. waaw comme noonu ko waxee maanaam Serigne Jéeri moom mag ñi nga xam ne dañoo àndoon ak moom euh, ku leen déggul tamit xam nga leen bi Serigne Bamba ñëwee nekk euh, premier xalifaam kilifa yi nga xam ne dañoo jaayante jaayantoon ak Serigne Jéeri Waransugu am ñoo xam ne yeesalaan na seen njëbbal ci Serigne Bamba Sougou waaw ñun liñ ci jot a xam sax xëy na suñuy suñuy wayjur ak suñuy maam Serigne Bamba Sougou mi nga xam ne moo njëkk a nekk xalifa Serigne Jéeri Waadaan ñoom lañ àndaloon di liggéey ñu nit bu suñu wayjur ñëwee tamit génnaatul kër gi ñu ànd ak ki nga xam ne moo njëkk nekk xalifa Serigne Bamba Sougou di Serigne ñu yeesalaat maanaam seen seen pas-pas ak seen jaayante si sëriñ bi noonu lay continuer waat taalibe tamit waaw yoon lu baaxoo rek noonu la ñuy continuer hmm. taalibe yi bu ñu ñëwaatee tamit noonu lañ continuer waat rek pas-pas bi jaayantewaat rek yeesalaat rek waaw noonu daal lay continuer waaw. mu mel ne mu mel ne fii daal ci waadaan mbirum taalibe fi am maam dundinu murit la ñuy dund waaye dundinu taalibe mag jiitoo rakk topp ca ña ca war a topp topp ca. waaw waaw noonu rek moo fi am ndax ki ki nga xam ne moo fi nekk di Serigne Makhtar Sougou moom mi nga xam ne dañ koy ñaanal mu yàgg fi loolu téwér Euh, nekk euh, xalifa Serigne Jéeri Waraan Sugu moom ndigalam rek lañuy ñuy dëggu lu fi am ci dëkk bi lu ne moom moo ko taxaw ku fi sos bis tamit moom ngay dem ba waxtaan moom ba mu jox la ci ndigal nga def ko kon daanaka comme ni ma la ko waxee noonu moom moo yor baat bi moo yor lépp waaw bu noon màggal gi tamit nii laa ko bëggee yore nii lañ ko taxee dañuy ànd ci moom loolu ndax kilifteef rek maanaam moo yor dëkk bi te ci kilifteef tamit ci la taay taalibe yi di way ci la ñuy ci la ñuy tënku. ndeysaan ci kilifteef la ñuy tënku dégg ngeen ko kàddu yi am am solo yooyu nga xamante ni tukkee na ci moom euh, ñu di leen fàttali rek ne leen ñi ngi fii ci Waadaan ci dëkkub Serigne Jéeri Waadaan di fi amalee màggaluk sëñ Bamba ji nga xamante ni sëñ Bamba sugu lañ koy defal sëñ Xaadim sugu di xalifa bi ne ci biir ànd kooki rakkam ñu leen di siyaara bu baax di ñaan suñu borom ñu fekk ko at yu bari ci barke Seex Xadim bu ko defee ñu taataan sëñ bi kàddu mu wax message bu mujj bu muy lancé mbaa kàddu yu mujj yi nga xamante ni moom la ci moom lay tëjee laataa ñuy tëj li nga xamante ne nii mooy ubbiteg bis bi waaye di di leen fàttali ne lim fi lim ci programme yëpp danañ ko ànd ak yéen war leen lépp loo xam ne xew na fi moo xam bernde yi ak yi nga xam ne lim nañ ko fi yëpp danañ fexe ba dara du leen ci rëcc yéen yi nga xamante ni yéen ay téléspectateur Touba Vision yi incha allahu taala kon sëñ bi waaw ñu ngi lay jaajëfal yéen waa ci seen taxawaay ndax at mu jot daanaka leen di ñëw ci waadaan gi maanaam di couvrir màggal gi loolu nag lu sedd suñu xol la lu sedd xolu sëriñ bi la kon dañuy ñaanal ci barke sëriñ jéeri waadaan mi tax ngeen di jëf rek mu gën leen a yokk bu baax a baax yokk seen i màqaama ba yaatal liggéey ba mu gën a lu faw ko seen jort xam naa comme noonu ko ko waxee rek xëy na dañ doon tàmbali nii rek waaye nag xam naa boo demee ci sëriñ bi ay kàddu moo gën a jot samay kàddu te mooy gën a leer xam naa boo demee yu ci bari hmm. moom dina la ko leeral comme ni ma la ko waxee nii tamit xam naa boo demee ba ci biir tamit hmm. euh, ba nga commencé liggéey bi dinaa la boole ñeneen ñoo xam ne hmm. dinañ la wax taarixu dëkk bi ak li li li aju ci dëkk bi lépp ak ñi nga xam ne nekk nañ fi ak kilifa yi nga xam ne bi fi sëñ ba jógee maam ki topp ci moom ak kenn ki toppaat ci moom yooyu yëpp nañ la ko gën a leeral xam naa ni loolu xëy na ñun dañuy tut tànk sax xëy na suñu xam suñuy kàddu maanaam euh, mënta àgg foofu ndax am na ñoo xam ne ñoo ñu ay kilifa lañ ci dëkk fi ñooñu ñoo ko war a jàllale waaye buñ nee ba liggéey bi gën a yaatu rek incha allah loolu dinañ ko gën a leeral bu baax a baax dinañ ko gën a leeral bu baax yoonu murit a baaxoo noonu ku ci nekk pàcc ba nga féete rek dañ koy bàyyi ak yow xëy na li ñu doon def mooy li nga xamante ni mooy tàmbalik bis bi di ouverture bi li nga xam ne mooy sappo bi incha allah ni leen ko waxee rek noonu lay continuer di wéy lépp lu fi ruuse rek incha allah dina ñu ko dégtal yéen ñi nga xam ne yéen ñu topp fii ci Touba Vision di leen jox dig daje ci yeneen image yi nga xamante ni fii lay amee ci waadaan incha allah wasalaamualaahi aleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. xam naa luñ ciy delluwaat comme ni ma la ko waxee rek ndax euh, ñun dañuy jëwriñ ci kër gi rek mm-hmm. waaye nag am na yeneen jëwriñ ñoo xam ne ñoo ñu gën a faw xa mm-hmm. ndax waa Touba ngi fi mm-hmm. ak waa Dakar ak waa feneen bari nañ fi ay jëwriñ ñooñ ñëpp daanaka ku ci ne da nga dem nga taataan ci moom ay kàddu mu leeral la li waral bis bi ak li tax ñu bis bi di am waaw xëy xat yeeg moo yu ci bari sax mënuñu koo leeral waaye dañ doon ubbi rek waaye comme ni ma la ko waxee daal boo àggee ci sëriñ bi rek moom mm-hmm. moom comme ni ma la ko waxee moom samay kàddoom ak ay ka euh, mooy gën a mooy gën a leer te mooy gën a jot daal waaw baax na jërëjëf. ndeysaan kàddu yi am taalibe dong la fi wone macha allah dégg ngeen wax ji ni mu ko rafetalee wasalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu jaa ngeen jëf. ñaanal yàlla saa borom sàmm leen musal leen te seen njaboot gu ndaw gi yàlla teg ci loxo ba lépp luñ bëgg a def ñu def ko barki suñu waran suuf jërë ngeen jëf sant naa leen bu baax nag gërëm naa leen barki suñu waran أعوذ بالله من asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu sëriñ bàmba ñu ngi lay nuyu yow njaboot gi nga àndal di góor di jigéen di mag di ndaw bàyyi ko daarul Muxti maa ngi leen nuyu nuyoo bu kawe nuyoo boo xam ne ñu ngi ko tibbee ci sunu biir xol di ko teg sa loxo nga tegal na ko ci loxol njaboot gi nga àndal yépp di sa njabootu bopp ak say wëllëre ak say dëkkandoo yépp nga ànd ak ñoom ngir ñëw fii jàppale nu ci bis bi nga xam ne bis la bu kawe ci noonu muy bisub sëriñ Bamba Sougou mi nga xam ne moo njëkk a nekk xalifa sëriñ Jéeri Wadane di la nuyu nag waaye di la sant itam ci sa pas-pas ak sa taxawaay ak sa yitte ci noonu ak ci njaboot gi dina xamal ne dina xamal ne daal sunu xol sedd na guy wax dëgg yàlla ndax xam nañ ne daal taxawaay ba nga taxawoon ci sëñ Bamba taxaw ko ci sëñ Wadane taxawaay boobee bu doon benn def nga ko fukk dara delluwu ci ginnaaw yëg nañ ko bu baax njaboot gi itam yëg nañ ko bu baax a baax kon nag ñu ngi lay sant te di la gërëm bu baax liggéey bi nga xam ne yéen a ngi koy liggéey itam waxtu wu nekk saa bu ngeen ko andee mu man mu man liggéeyu daaw ba loola pas-pas la da xam nga ne jamono ji fi mu toll xat na lool ak yi nu jóge waaye yéen xoolu leen xat-xatu jamono da ngeen a xool seen diggante ak sëriñ bi bu ngeen déggee sëriñ bi kàddoom jóg wala lu jëme ci lu ñu ci sëñ bi bàyyi ngeen seen yitte yëpp bàyyi ngeen seen soxla yëpp ñëw ànd kook nun ba loolee kon noo ngi leen di nuyu ngi leen sant ñu ngi leen di gërëm bu baax di nuyu itam soxna Ayda mi nga xam ne moom itam wala ci kër gi ak cofeel ak mbëggeel moo ko indi ci kër gi mu ànd ak yéen ci liggéey bii te liggéey boobu toujours ngeen di ma wax ne ma ñun Ayda ci man loolu wax dëgg yàlla yéen a ko moom waaye nee ngeen ay demoo leen ci man ndax dara dikk dara dikk fekk si leen seen kër sëriñ di jëf li ngeen di jëf kon mel na ne loolu ngeen wax nekk na waaye nag kon ñu ñaanal ko ñaanal mbooloom yëpp ñaanal jigéen yëpp yaakaar jooju ñu am ci sëriñ Jéeri Waadaan am ko ci sëñ Bamba am ko ci suñu Waadaan yaakaar jooju yàlla na ko mottali nga nekk ci kanam njaboot gi nu ànd liggéey boobu sa doom yi ak sa jarbaat yi ak sa rakk yi ak sa sët yi ñëpp kenn ku ne fenn ne waaye jàpp fa loole yëg nañ ko yàlla na ko yàlla gën a kanam yàlla wéeral la wéral njaboot gi yëpp ba taxawaay bi ni nga ko bëggee ànd kook ñoom saa borom mottali ko barke sëriñ Jéeri barke sëriñ Touba am nañ ci yaakaar nañ bu baax ndax biis bii bisub sëriñ Bamba la sëriñ bàmb moo njëkk a nekk taaw moo njëkk a nekk xalifa sëriñ Jéeri Waadane fii ci Waadane ànd ak rakk yi ànd ak njaboot gi yëpp loolee am na loo ci xam kon jàpp naa ne képp koo xam ne am nga yëngu boo yëngu di ko jëmee ci moom te muy ak lu baax yaakaar naa ndolleen rek nga cee nga cee am te loolee xam ngeen ko kon nag liñ ci yaakaar ci bis bi yal nañu ko yàlla defal te defal nu ci lu kawe njort maa ngi leen di sant maa ngi leen di gërëm bu baax ndax xataayu waxtu yi jërë ngeen jëf salaam wa rahmatullah sëñ bi ñu ngi lay ziyaar bu baax a baax di la xamal ne bis bi moom ñu ngi koy defal sëriñ Bamba Sougou ñu njëkk a nekk xalifa sëriñ Jéeri Wadaan moom lañ koy defal bis bi nag sëriñ Wadaan Sougou jàmbaari sëriñ Bamba Sougou moo koy doon defal Serigne Bamba Sougou muy ñaan goo xam ne ci dañ koy ñaanal Serigne Bamba ngir fam nekk foofa suñu borom dolli ko yërmande dolli ko xéewal ñu jéggul suñu borom loolu moo sabab bis bi bis bi nag di bisu mbégte di bisu tiraanga di bisu faju aaju àddina ak àllaaxira suñ jàmbaar ju baax ja sëriñ Saaliw Mbàkke moom sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul biñ ñëwee di ko laaj ndigal di yeesalaat bis bi sëriñ bi laaj ñu bis bi lu ko waral ak lan mooy sabab ba ñu wax ko sabab bis ba mu daan ne defal naa leen ci taw feexul suñu borom muy yóbbu leen ko ba ci fukki fan ya fukki fan ya day xéewal nga ca mbégte ma nga ca moo waral bis bi ñu def ko ci fukki fanu nday koor saa su weeru teroo rek lépp lu mu tombeel rek muy weeru tubaab bis bi moom fukki fan la ci ndayu koor sëriñ Bamba Sougou nekkoon jàmbaar ci kër sëriñ Jéeri Waadaan ak kër Serigne Touba ndax wax na ne Bamba su ginnaaw bi suñ borom dogalee sëriñ Touba xaadim rasul suñ Serigne ba di dem njaareem dafa yóbbaale Serigne Bamba suug ay rakkam Serigne Touba suug ak Serigne Ahmadou Tasrif sugu ñu dem wuju Seexul Xaadim xaadim rasul sëriñ Jiir am na ay wax yoo xam ne si Serigne Jiir waxoon na ko ci diggante moom ak Serigne Touba Serigne Bamba demee foofa ca njaareem fekk Serigne Touba xaadim rasul bi sëriñ bi nekkee njaareem ba suñu borom dogal dogal ba ñëw mu wuyu suñu borom ñu ko yóbboo Touba ci ndigalu sëriñ Touba mu wax wax jëm ci wax wax ju yéeme yéeme na bu ngeen egg ne ko wax sëriñ Fall wax ko sëriñ Taab Abdourahmane Lo sëriñ Bakk so na ko taxawe biñ defee loolu ba ñëwaat njaareem wax wax ko sëriñ Touba sëriñ Touba ne seen waajare muy sëriñ Jéeri am na maxfiratan wa rahmatan am na njéggulu fii am na njéggulu fee mu wax nag sëriñ bàmba sugu mi nekk xalifa sëriñ jéeri ne sëriñ bamba demal nag boo eggee nga yeesalaat waa daan defaraat ko foofu la sa waajur ne dëloon muy waa nga defal ko nag te téye te njaboot ga sëriñ bamba sugu nag mu ñëwee waa daan nekkaat gi nekk fekk ay jàppale leen yiir leen lépp doon bànneexu sëriñ jéeri waa moom sëriñ bamba sugu mu nekkoon ci loola loola nag du leen lu jàng alxuraan ak jàngale ak jàng xam-xam ak tarbiya taalibi yi ci yoonu murit tarbiya leen ci yoonu sëriñ jéeri ak yoonu sëriñ Tuubaa bis bi nag di bis boo xam bin xëyee jàng nañ alxuraanul karim jàng xëj de sëriñ Tuubaa def nañ ay berne berne yooyu yëpp nag dara warul ko lu bëgg bëgg xéewaluk sëriñ Bamba ak xéewaluk sëriñ jéeri waadan mboolem fu taalibe nekk moo xam bitim réew la moo xam fii si senegal ak ku mën a doon ku teew ku teewut ñu ngi lay ñaanal faju ajo àddina ak àllaaxira ñaanal la nga yokk ba yokk ko bu baax a baax ndax bis bi daal moom li ci làmm ci ay xéewal ak ay ngëneen bari na lool ndax bis bi am na sax ay nit jaamikati yàlla yu rëy yoo xam dañuy woor ci bis bi am ñoom bu ñuy ñëw dañuy woor ci bis bi ndax woor ci fukki fan yi ngëneen la tiyaaba la jaamu yàlla la muy bésu ngëneel muy bisu mbégte di bisu xéewal bis bi nag li tax ñu gën koo gën koo jëmmal mooy dafa bàyyiwaat bàyyikuwaat ci loxoy sëriñ Saliou Mbacké mu Sëriñ Tuubaa moo ne fukki fan yi lépp loo ngeen ci def aaju yi faju la lépp loo ngeen ci def tombee nag seen bëgg-bëggu sëñ mbamba ak sëñ Jéer ak sëñ moo tax bis bi fu taali bi mën a nekk rek dañ la ci daal di woo bëgg maanaam yërmande joojee ak xéewal ak teraanga ak barke ja mu fekk mu fekk si ñu fii ci Waadaan ak mbooleem lépp lu wër ci àddina bi rek ak lu ko lépp lu may doon rek mu nekk lu taw féexe lu neex a neex sëriñ Xaadim Sugu nag mooy xalifa sëriñ Jéeri sëriñ Bamba Sugu moo fi nekkal moo fi nekkal uh, sëñ sëñ sëñ Waadaan fi sëñ ma nga fee man mii di wax ak yéen rakk laa ci sëriñ rakk laa ci sëriñ xaadim sugu may Abdul Ahad maa ci gën a nekk xale waaye nag sëriñ bi moom li mu bëggoon ci bis bi rek muy faju aaju àddina ak àllaaxira moo tax mu di ko woote wootewu ko ngir am fo wootewu ko ngir maanaam ne sëriñ Bamba nii la meloon déedéet sëriñ Bamba dafa nekkoon nit koo xam ne si dafa wàcce woon boppam sëriñ Bamba dafa nekkoon nit ku amoon aw yiw ci mboolem jaam sëriñ Bamba li ko suñ borom defal dafa tombeeg taw feexul suñu borom ndax sëñ waaraan nee na am na bis fii may may julli am na bis fii may julli bi may jullee ba rakkaa bi mujj bi ma ne asalaamaaleykum ñépp danoo daw ma ne gees yam ci sëriñ bamba ma ne kii kan la mu ne man la sëriñ bamba mu ne ko dangaa bamba danga dawul mu ne ko déedéet damaa gisul li may li may dàq sëriñ jéer na alhamdulilahi rabbil alamina bamba mu ne ko sugu mu ne ko day li ma doon seet ci yow gis naa ko muy mbooloo mi ma bëggoon nga teel ma ko yow day xam naa ne yow yaa attan waaye waxuma la tee waaye dama la damay fab li ma yor ma roqos ko ci yow loolu mooy tawfeexu Sëriñ Bamba moo tax Sëriñ Bamba bi fi nekkee dafa yiir yiir ñëpp yéene ñëpp jàmm yoonu Sëriñ waa jéer yi mu yóbbu ko fokk kenn yóbbul moom Sëriñ Bamba loolu nag mooy tawfeexul suñu bis bii ñu am ni ñu di ci woon ak julliti yàlla yëpp di ñaan suñu borom defal ñu tawféex defal ñu fanu gudd defal ko mboolem jullit yëpp defal ko Cheikh Mountakha mi nga xam mooy fi nekkal sëriñ Touba defal ko Serigne Makhtar xalifa Serigne Jéeri Waran ak Serigne Bamba xalifa si amul tasrif ak mboolem ay rakkam ak njaboot sëriñ Jéeri gépp aousu billahi min asheytaan rajim wa inni aousu bika wa suryataha min asheytaan rajim rabbi aousu bika min amasati sayati wa aousu bika rabbi an yaxduru di santi mbokki jullit yëpp di sant tamit mbokki taalibi yëpp ak ñi fi teew ñëpp ak di leen gërëm bu baax a baax a baax di gis pas-pas jeeg yéene jeeg yëg gi solo si mu am ndax euh, kuy defar moom dafay defar loo xamante ne si ne lu mat a defar la doon te lii ñuy defar dafa doon loo xam dañ koo mat a defar muy bis bu rëy di bis ndax euh, ni mu demee woon teg njabootug Serigne Touba ñun am nañ ci lu loo xamante ne sine jàpp na ne tey jii sàmm guñ ko sàmm ak kóllëre gi ñu koy kóllëre moom wax dëgg fa yàlla ah ndam la ci ñun de ñun ñi fi ñëw de chaque année di yokkute taalibe yëpp di teew nii fu ne nit di fa bawoo di jug ngir bis bi ak xat-xati bis bi ni mu demee chaque année nag muy jegeeg soxna jaara te ku ne xam na ne Serigne Touba ni mel ci Serigne Jéeri kon ñun dañ ci ànd ak tawféex yu mat a mat a mat saa bu jegeeg soxna si rek tombeeg bis bi rek ñun dañuy gën a bég ndax soxna jaara day ah néew bu tibbee day waaye bu tibbee day lu mu metti metti dana jox waa ka Serigne Jéeri waaw am ndabam moom wax dëgg fa yàlla bu ko tibboon te fekkee fekkewuñ ko danañu séddale ndax euh, noonu la fi doxee noonu ko daan doxee ci noonu lañ ko sëriñ Jéere womatale noonu la ñu boolee ñun ñëpp jubale sëriñ Touba ñun de dëgg fa yàlla amuñu ñuy tiit ndax ku ku song ñaari mbër muy mu mbër moo xamante ne si wax dëgg fa yàlla ku ne ku bëgg ku bëgg lu baax lu ne ci ngay wuti kon sëriñ Jéere tey bu ñëwee boolee njaboot gépp womat jëmale ñu sëriñ Touba kon ñun yaakaar naa ñun amuk tiit. ndax euh, bis bii tey jii tombe na te xat-xat ndax dafa ànd ak ay tawféex yu bari dem ba léegi moom wax dëgg fa yàlla jaamu yàlla gu gu waaye doon jaamu yàlla wan ko gën a mën a yokkaat ndax dangaa laal ci Serigne Touba laal ci Serigne Jéeri te dañuy benn ëtt ndax ëttub Jéeri di Bamba te Bamba di Jéeri waaye Jéeri du wax lu Bamba du waxe un waaye Bamba du wax lu Jéeri du waxe un kon lii nag sunu kontante la sunu mbégte la ci saa su ne muy dajeeg moom ñuy dend ñu mën ànd waaw di ci ñaanal nag suñu mbokki télé bi yi nga xamante ne si ne fekke woon nañ ko daaw te fekke wuñ ko ku ci mel ne di soxna sëñ bi di soo di waajuru sëñ bi moom daf ko fekke woon waaye ren ji tamit wax dëgg fa yàlla ñu am ci ay wutee fekkewu ko ñi ngi ñaan yàlla na ko Serigne Jéeri teeru Serigne Touba teeru ko ñu teral ko foofu ba mu ko ah, ak njaboot gi nga xamante ne ñoo fi jot a bawoo dellu wax dëgg fa yàlla ñi ngi leen ñaana suñu borom defal leen fi tawféex ñu yëg bis bu baax a baax a baax a baax a ndax dañ daan ay mbokk taalibe yu sabablu ci bis bi ay mbokk taalibe yu tamit yoo xamante ne si ne daan leen yëg ci bis bi lool pas-pas ji ñu ànd ak yéene ji di ñaana ñi nga xamante ne si ne ñoo dagg seen yitte ndax doomu aadama bu dagg yitteem mënoo koo fay te nit ku la jox xolam rek jox na la léppam dañuy ñaan Serigne Touba defal leen seen i mbir yëpp yëpp yëpp yëpp ak Serigne Jéeri ndax boo daggee sa yitt ak jamono ji méttee ak fi réew mi fi mu toll wax dëgg fa yàlla yëg-yëg la yëg-yëg la lool ndax lii lépp fi am ni séntu ko woon séntu ñu ko woon ndax jàppoon nañ ne lii mënu fi am waaye kër gi nag da di kër Serigne Touba te kër Serigne Touba moom lu fi waaye def rek wax dëgg fa yàlla sa bopp nga ko jëfal kon ñoom ñëpp di ñëw xam nañ leen fi wut si xam nañ leen fi am si moo tax it fu leen woo lu mu métti métti ak lu mu xat-xat rek dañuy daal di def teew ñu sant bu baax waa dëkk bi yëpp di sant tamit waa tund yëpp di leen gërëm ndax ba bis bi dadee ba commencé ba léegi amuñu benn benn benn yitte lu dul moom wax dëgg fa yàlla amuñu seen fay waaw amuñu seen fay de seen taxawaay rafet na lool taalibe yëpp seen taxawaay rafet na waaw gis nañ yéen a jéeg yëg-yëg ji lépp yal na suñu borom defar lépp yal na suñu borom defar leen tawféex yu bëree bëree bëree bëree bëri waaw euh, di sant nag bu baax a baax a baax a baax suñu sëriñ bi Cheikh Abdou Lahat ak kàddu yi mu fi jot a sànni yëpp di sant rakkam ji toog fii di sëriñ Mbàkke Sugu di di di wàju di doomi si sëriñ Bamba Sugu ñi ngi am leen teg moom kóllëre wu rafet démb ba léegi mu mu ànd ci ak moom <laughs> mu kon mooy xalifa mu ànd ci ak moom démb ba léegi ñu di ko gis ak yëg-yëg ji ñu ci am ak pas-pas ji ñu ci am wax dëgg fa yàlla rafet na loolu ndax dem ba léegi jugu fi macha allah yàlla na yàlla guddal fan wi wéeral cër yi ba li ngay yóotu tamit mbaag suwu fara nga jot ci ndax wax dëgg fa yàlla gis nañ yëg-yëg yeeg yéen a jéeg yëpp loolu rek am solo di ñëpp di sant ñëpp rek gërëm ñëpp di leen waxal ne yàlla na ni yàlla defal ay ati atat ñu koo fekkee xéewal gu baree baree baree baree baree mosuñu ci cat ak làmmi ak musiba ak balak lépp luy lore yàlla na yàlla defar lépp ci biir ak biti asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu jox suñu sëriñ bi jërë ngeen jëf dafa mel ne waxtu wi wax ji tënku na waaye e, xanaa ñu jottali ci kàddu muy sant ak mbégte gu sëtëk ci njabootu Cheikh Jéeri gi nga xam ne ñi ngi leen di fekk si mu mel ne ñoom seen taxawaay noonu ko ko waxee rek dañ koy delloowaat ci ëttub Serigne Touba seen biir rek seen bitti lépp lislaam rek la alxuraan rek la sunna rek la loolu lu nu mën seddale ndax jortu na ne bi nu dajee teew fii ak waxtu wi jamono yooyu bu ñuy tollu ci fukki at ak juróom la ñuy toll te noonu ci juróom benn fukk ak juróom léegi kon war nañ fee xam na am dara waaye ay gor fi ay jullit lañ fi xam ñu di murit saadix di taalibe yoo xam ne lépp lu sëriñ bi dégle ña ca waaye li ñuy tere doo leen cee gis itteewoo lool xam-xam itteewoo alxuraan waaye di ay jullit yu jàpp seen bopp ci lépp loo xam ne day tilemal diine wala loola lislaam gërëm muy mag nag di ndaw ñëpp loolu lanu rek lañ mën a seede ci ñoom waaye rawatina ci seede googu jëmm ji toog léegi muy sëriñ Abdul mu koy xool ba yàgg ma ne ko jël nga jukkay sëriñ Abdul Ahad waaye jëmm ji damay fàttali sëriñ Mbàkke Madina te noonu ma jëmm ji fàttali sëriñ Mbàkke Madina it ay jukkoom ak ki jëfam dafay delluwaat ci loole te loolu mooy yar gu leen yar ci lislaam jàngal leen lépp loo xam ne seen yoon nekku ca loole doo leen ca gis jamono de yëngu na lool ba ñu wax naan eh, xew-xew yu bari mën naa rax ci wàllu àddina wala yeneen i doxin waaye ñoom de seeni woote ak seeni bis liñ ci leerlu di ko ca gis mooy alquran ak xasaayit Sëriñ Tuuba ak dundalu bokk ak rafetal ko kon loolu la seere ci ñoom ñëpp nag la tàmbalee ca mag ña nga xam ne ñan ca joroon xam mooy maamam di Sëriñ Tuuba daanoon ko siyaare fii suñu wajur woowu yi nga xam ne mooy Sëriñ euh, euh, Waadaan moom it siyaare nañ ko fii ba ci weeru koor wi mu demee wala bu ca weeru koor yor soriwu ko weeru koor ma mujjee ñëw fii fekk ko mook sëriñ Bamba ñu toog sëriñ Bamba di ko fekk maa ngi jamono yooyu maa ngi yëngu ci wàllu ay photo bëgg koo photo waaye dama gàntal ma am fi yeneen photo yóbbu ko man delloo Ndakaaru laa dégg wàccam ginnaaw bi waaye bis bi ba ñu ko jàppee ca ñu jëkk ànd ak waa Ndakaaru ñëw di ko màggal si fii ba jamono ji tey ji ci laa bokk jàpp nu ma at ma nag waaye jamono yooyu bi ñëw fii booba dugub ji ak gerte gi ñor na yenn yu ndaw yi ñu ngi wàcc ci tool yi di ci jëfandiku kon loolu yàgg na waaye li ñu bëgg seede rek mooy ay gor a ngi nii ay jullite ngi nii noo ngi yaare nag bu wér sëriñ Xaadim mi nga xam ne mooy jëwriñu kër gi ak rakkam ji sëriñ Ahmadou ak mboolem taalibi yëpp moom daal benn rek lañ sëriñ Xaadim jikko ji rafet na léppam lislaam la euh, fu mu teew fu ne it ah euh, képp koo xam ne jullit nga doo rusa teew foofee nekk fa ak moom ci wu rafet ak jikko yu rafet kon sant nu bu baax di ñaan ci barke Seexul Xadiim barke maam ji Cheikh Jéeri Wadaan ak baatub laa ilaha illallah bi nga xam ne ñëpp ñëpp nawe nañ leen ko ngeen ko yëkkati seen biir ak seen biir ak seen biti lépp suñu borom yëkkati ko mu kawe lool ci saahir ak ci baati waaye nag rawatina sunu sunu sunu sunu sunu sunu rakk ji di sunu sët bi sunu borom yàlla na yëkkati maqaamaam dolli koy xéewal ba ni li mu bëgg ci bis bi bu delloo waxtu wii ci waxtu wii nu toog di ko waxtaane incha rabbi mu am ko nam ko bëggee ci saahir ak ci baati barke Cheikh Abdoul Ahad turandoo moom barke alxuraan xasay barke Cheikh kon yëg ci ay bayit rek ci xasida yi te ko ak Cheikh Dim nafaahani man lam yakun bi waladi wala bi walidin fataba xaladi على الذي ولد خير ولدي وخير والد بخير بلدي بآله وصحبه والهمدي صلاة سلعرس العسيم السمدي ألف لاميم إنما سبيل ولا تجادلهم الله من كل كريم أكرم من أمه خاد له تكرمه aslim lahu kulla kan himaani wala simi lisaani lirahmaani waajim bi suri bila kuraani tufay saabo maani raani alyumnu wa yusru wa khayra sadadi fi khayri sigrin qad ata madadi xat faaxa kulla siri siri laadi almalikin mukarramin mutaadi faase saidin بالقرآن من ددي نجا بما يديم خير سددي سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين barke Borom Tuubaa barke Cheikh Mouhamadou Lamine déglul ma wax la fi melaw sejeeri ndem xamuloo ko mooy borom lan waari ajom la yàlla baj ba ñépp xam ko wulil ko réew mi ba ñépp gëm ko yàlla yabal jibril mu fal ko fi buur dunya wa uxra musla juk si anguur jaaxal na fi gaay def na fi karama ku ñépp xam labam laata dem xiyaama xol ba ka leer leer si wax dafay yërëm xamlu umpulewul dara te mus la xamlu kenn musu ko ñaan ku bam sa ndam lu kenn du ko ñaasi yàlla ke ko jom lu bur yàlla na di yokku ay jëfam di yokku xeewalam yàlla ko bil magasin mboot ya mu sakka sakk ngir njaboot ya ku dib sa dam mu jur isantu num mën a mel mu mujj sontu fonnu ma bu yàlla buur fonnu ma moo gën a dër dëj gën a dër weñ ak sima ku bëgg lim mbooti sëriñ jeeri sugu wutal watab bu fees nga bindu ko xanaa xalam li ci ay mbiram ndax yàlla buur bi yokku say njariñ ku yàlla sopp ku ko sopp soppeeku ku yàlla tan ku ka gantu wàññeeku ku yàlla baaxal ku gantu wàññeeku ku yàlla naatal ku ka naatal ku yàlla baaxal ku gantu lantu ku deeti xaji bala ye fañ bas lu dan dina meeya i e kana am ku jàquti dellu si na ma seex jeeri waa dan lu dal fajal ma mu daa diray tibli yabal sa jàngoro mu daadi naaw di jaar mi bind saafara kenn mun la jot asakay xarbaaxam géej gu werul kenn mun la jot am teexam diyaale nag yàlla ci képp fan lu jëm si yàlla mu taxaw si jon liggéey yàlla ray bidaaya looloo waral mu bari ay hidaaya lii di mu bay di moo di na tor basam xam na ne mbër feeña ku lambu sajje na nga seet jàmbaar ya sant bu baax di ko gërëm ndax lii yombul nit dagg ay yitteem yëpp ñëw teewal fi fii taxaw la taxaw bis bi taxaw bu rafet wax dëgg fa yàlla yombul dañ lay ñaanal yow mi nga xamante ne si ne teew ya nga bokk télé ba yàlla yàlla defal seen i yàlla na nga dem yow ba jiite bureau ya ba yebal ñuy ñëw a ñëw nga am ca lu kawe sa njort ndax lii moom am na solo lool wax dëgg fa yàlla rafet na ak yëg la tamit ak yéene la tamit wax dëgg fa yàlla ndax li nga li nga xamante ne si ne mënoo ko nit defal la ko donte bu doon lu mu tuut tuut sax wax dëgg fa yàlla bu ko xeeb macha allah dañ ñaan ñaanal suñu borom defal la tawféex rek fanu gudd lool te ànd ko wér lépp li nga ci bëgg rek sayeboo na nga ñaan ko ci ndax mbër yi fi jaar yëpp bokk ci nga xamante ne si ne jiite nañ réew mi yaakaar naa man am na ci lu ma ci ump loo xamante ne si ne am na ci lu ma ci xam loo xamante ne si ne bëri ni ñu fi jaar joggi ci am fi jaar fi seen mbir yëpp saafara wu faju kon yàlla yàlla saafara say mbir yan moom diis na lool ku yenu tamit danga xam ne yenu na waaye ku sam xel dem si Ahmadou Bamba la mu woon a ah, boo géntee di xalaat da nga xam ne sab yan oyof na tooy tooy tooy ndax moom yanam yaakaar naa benn yet bu buñ ko gàll fukki yet yu ñu gàll ko gën a moo benn yetam moo gën a diis ñu ni bu ñu gàllee fukki yet bi sëñ Tuubaa gàll yet ba mu gën a gàll moom ba mu gàlloo woon moo gën a diis fop ndax fa mu jaar ñun duñ fa jaar kon buñ jàpp ne tamit lépp lu ñen rek diis na na ñuy na ñuy xalaat di xam ne si ne sëriñ Tuubaa rek wax dëgg fa yàlla lu waay gàlloo rek na ko ci xalaat bu baax a baax a baax mbir yi xatoon na métti na dund ko diisoon na lool waaye comme sunu dund nii la ñun ñii lañ ko jàppee nii ci jamono yi loolu métti na nañu gëm ne la fi Serigne Touba bàyyi woon ba tey rek bu buñ ci jàppee rek lépp dina sotti wasalaamaaleykum wa rahmatullah yàlla na yàlla defal xéewal yépp gërëm na leen sant na leen aousubillahi mina seytaani rajim bisimillahi rahmaani rahim baax dal azbala wa baax dal basmala mbokki jullit yi mbokki taalibe yi eh, rawatina yéen ñi di téléspectateur u Touba Vision ni leen ko waxe woon tey ci suba rek ne leen dinañ leen dégtal mbooleem siyaar yi nga xamante ni am na ci barabu seex Jéeri Waadaan bi waaye ci màggaluk Serigne Bamba Sougou bi toog kenn ci njabootam muy kenn ci doom yi nga xamante ni doomi Serigne Bamba la di borom bis bi eh, war fay jël li par rapport ak màggal gi ak yëg-yëg bi ak sabab bi waaye ak aslu li nga xamante ni mooy dëkk bi ndax dëkk boo dem am na taarix am na cosaan am na lu tax ni sanc ko waaye ku ñu wooteel màggal rek ku nekk am na lu mu def waaye ku def ku nekk rek euh, sunu borom day dogal la nga liggéeyoon day dem ba ci say sët ak say sëtaat di la taxawul taxawaay bu mel noonu kon bu ko defee suñ bàmb ñu ngi lay siyaar bu baax ci seen bisu waajur wi te laaj rek li nga xamante ni mooy kàddu yi nga xam ne mu ngay tukkee mu ngay sànni ci bis bi muy solo si bis ak yi ne mel jërëjëf dafa am luñ baaxoo def loo xam ne avant sëriñ si di wax dañoo am hymne national muy bàkkuwaa daan te fuñ mën di dem dañ ko daan yëkkati pare léemoo ko bis te tëjee ko bis bi la ilaha illallah ha illa la naar la ها إلا لا سوق لا إلا ها إلا لا باي بامبا بامبا سمام ولي لا لا إلا ها إلا لا باي بامبا بامبا سباي ولي لا لا إلا ها إلا لا na jërëjëf ginnaaw ñu ngi sante yàlla julli ci yonente bu tedd ba sant Maolana Cheikh Ahmadul Xadim sant bu baax suñu jéeri mi nga xam ne mooy sunu buntu ci kër Serigne Touba am nañ mbégte bu baax ci teew gi ngeen teew fii di leen ci sant te di leen ci ñaanal bu baax a baax a baax tey ñaan yàlla sunu boroom defal ñu lépp loo xam si sunu borom dogal nañu jëf ko ci bis bi ñaan yàlla ñu dajal ceeg ngërëmal Serigne Touba ak ngërëmal Serigne Jéeri yal ko yàlla suñu borom defal waaw bis bi nag bis bu rëy la ci ñun bis bu mbégte la ci ñun it ba tax na bokk na ci bis yi nga xam ne saa bu ñëwee dañ ci fas yéene góorgóorlu suñu kemtulaay kàttan ci luñ ci man fas yéene it képp ku nekk te xam ne ñooy sa jawriñ ci yoonu kër sëriñ Jéeri wi danañ la ci soññi ba nga yëg ne bis bi ñor nañ ndax day bisub nitug yàlla di bis boo xam ne si bisub doomi sëriñ jéeri waadaan la muy sëriñ bàmba mi nga xam ne mooy taawub sëriñ jéeri waadaan moo fi njëkk a wut wutu it sëriñ jéeri waadaan 1922 bi fi sëriñ jéeri bàyyi ko boobu la fi toog ci ndigalal sëriñ Touba Cheikhul Khadim ndax bi fi bàyyi ko 22 ci la sëriñ jéeri jële mbooloo mi yëpp yóbbu njaareem ci sëriñ Touba sëriñ bi wàccee njaareem ci la sëriñ wootee njaboot gi ñëpp daje ak ña àndoon moom mu ne leen topp leen ci ginnaaw sëñ Bàmba mi te ngeen delluwaat waadaan ga nga xam ne fa la leen seen way jur woo bàyyi woon te bu leen fa dara jëlee lépp dana leen fa fekk yaakaar naa wax yi sëriñ Touba du doon wax joo xam ne si wax ju ni la wala ju ni gëstuwaat la lépp lu wax rek day yokk waaye du dellu ginnaaw bis nag loolu bokk na ci li nga xamee ne si maanaam maanaam sabab la ci bi sëriñ Bamba dikkaatee fii ba ni fi jógee nag sama wayjur wa di sëriñ Waadaan Sugu daal di taxawal bis bi di ko ci màggal di ko ci ñaanal di ci ñaanalaale sëriñ Jéeri ak mboolem njaboot gi ñëpp ginnaaw bi fi sunu wayjur wa jógee di sëriñ Waadaan mu teg ko ci sunuy loxo ñun ñi ci sunu njiit di sunu kilifa di sunu yaakaar di sëriñ Xaadim Sugu ñuy ay rakkam topp ci ginnaaw moom it mu jël bis bi yóbbu ko ba yóbbu ko fu gën a kawe fa ko way jur fekkoon ah, bàyyi woon ñu ànd ko ak moom fas yéene topp ci ginnaawam saa su ne waxtu wu nekk ci ay ndigalam ak ay ak ay ak ay tereem fas yéene lu ci lu baax bu bis bi ñëwee rek képp kun xam ak kun xamul bun la bun la la ci mënee boole ñu boole la ci ngir yàlla suñ borom jox la ci yiw woowu kon nag sant leen bu baax di sant taalibe yi nga xam ne ñoom ngeen fekk ñoom ñëpp kenn ku ci ne mënoon nañoo jaar ci saw tur ndax xam nañ la bu baax ngay jëwriñ joo xam ne si war na ma ne bis bi jox ko leen nañ si man ak yow ngir bis bi kese waaye nag boo tuddee boo boo duggee ci doon lim mën naa am da ngay juum xanaa liñ ci fe mottali mooy di leen ñaanal rek yàlla sunu borom tabaaraka wa taala yokk seeni xewal yàlla yokk seeni wërsëg yàlla suñ borom defal leen barke ak taw ci barke Serigne Touba barkeb Serigne Jéeri dëkk bi nag am na cosaan cosaanam mooy que ne sunu maam moo ko sancoon moom Serigne Jéeri wax nañ ne sax laataa lu jiitu mu di ko sanci ay maamam ñoo ko ñoo ko ñoo ko njëkkoon a sanci bàyyi ko woon Muritani ñëw fi sanc ko ñenn ñi delluwaat ñenn ñi desaat fële ca waadaan jàmbur bi mu demee nag ba amaat ci ndigalal boroomam ci ndigalal boroom ak ndigalal Serigne Touba Cheikhul Khadim ci la daal di jógewaat njàmbur daal di ñëw jaar dëkk bu ñuy wax sañc Kër Ahmadu Maxtaar doora ñëw fii sancaat dëkk bi yeesalaat ko yeesal ko ngir lan ngir la fi maam woon muy jaamu yàlla samp fi ay daaray tarbiya samp fi daaray alquran di fi jàngale di fi liggéey looloo taxoon mu sanc dëkk bi loolee mu fi bàyyee woon nag maanaam loolee mu sanc woon dëkk bi booba tey dara dellu ci ginnaaw looloon lañ tegaat suñu tànk fas yéene it mu gën a jëm kanam bu baax a baax a baax di dundal lam fi waccoon lépp muy alxuraan ak na ndax loolu rek loolu la ab jullit am amul leneen lu ëpp lool kon nag bu ngeen ñëwee teew fii xëy na bis bi xat na te it euh, liñ bëgg a waxtaane lépp yaatu na yaatu na yaa bari na bari koo xam ne suñ ko bëggee na euh, waxtaane jataay bi dana gën a yàgg lool te yaakaar naa ne am na yeneen yeneen kilifa yoo xam ne am nañ ci ay kàddu moo tax xam naa ne dañ koy gàttale nii rek incha allah rabbi yàlla mën naa def su benn yoonee dana gën a yaatu fas nañ yéene gën leen gën leen a dénk bu baax nag ngeen gën a góorgóorlu bu baax gën a sax ci ak jaamu yàlla te gën a ragal yàlla te gën a topp ndigali sunu borom yi xam ne àdduna ji yàlla sunu borom sakkuñu fi ngir lenn loolu ñu jaamu ko topp ko te ragal ko leneen lu fi nit mën a nekkee ci kaw suuf lurul loolu bu ëllëgee di nga xam ne sunu borom kat bëggul koy fo bëggul kuy jaaxaan kon ñoo ngi leen koy dénk di ko dénk sunu bopp di ñaan yàlla defal ñu jàmm ak tawfeex te defal ñu sutura ak mucc ci barkeb Cheikhul Xadim ci barkeb Sëriñ Jéeri ñoo ngi leen di sant nag yéen waa télé bi ñoo ngi leen di sant bu baax di leen gërëm ci teew gi ngeen teew fii maanaam ànd ak ñun bis bi lépp lu nu ci am ci aw yiw yàlla nañ ko bokk yéen ñëpp bokk koog mbokk taalibe yëpp ku ñëw ak ku ñëwul ndax taalibe yi ay jàmbaar lañ ku ñëwul rek sa jëf ñëw na te xam nañ ne bu baax boo ñëwul it mën naa am xat-xati jamono rek la waaye am nga yéene joo xamee ne si mooy teewoon waa kon nag ñu ngi ñaanal ñëpp képp koo xamee ne sunu borom tabaraka ta taala dogal na ñëwoo te maanaam ngant rek moo la wala jafe-jafe àdduna yal na la ko yàlla saafara te wéral te defal ñu tawféex ci barkeb Serigne Touba barkeb Serigne Jéeri asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. la la la ok jërë ngeen jëf mbokk yi téléspectateur u Touba Vision yéen a ko déggandoo bi nga xamante ni sëriñ bi def na ko mooy fàttali na cosaanu dëkk bi waaye dugg na ci biir histoire wax li waral màggal gi ak sabab bi waaye it dafa laasewaale na benn message bu am solo mooy li ko war digganteem ak taalibe yi bàyyiwaale na ko xel ci biir message bi nga xam ne doon na ko wax mooy soññiwaat na mboolem taalibe yi ci jaamu yàlla waaye topp suñu borom ak yi nga xamante ne nii moo war diggante Euh, ab sëriñ akub taalibeem loolu sëriñ bi insisté waat na ci kon bu ko defee saa su nekk rek liñ leen di faral di wax mooy ñuy bàyyi xel suñu digganteeg ni ñu yàlla boole ñuy suñuy wasila euh, tey bàyyi xel yi di jéem a jëfee seen ndigal comme lu mel ne li sëriñ bi wax muy kàddu yoo xamante ni taalibe foo mënti nekk bu fekkee ne màggal gi rëcc na la ñëwoo boo ko demee ci siti ba seetaan ko ba pare nga bàyyiwaat sa xel ne yow mi di seetaan te teewoon ci bis bi yow la sëriñ bi di waxal kon mbokk yi noonu lañ leen di joxe dig daje incha allah ci yeneen siyaar yi nga xam ne boobu ba bi wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu waaw ñu ngi leen nuyu di siyaare ginnaaw bu pare ñu ngi laaj ci ban daayira ngeen bàyyeekoo. ñu ngi bàyyeekoo Géejawaay Asan ñu ngi bokk ci daayira sëñ Xaadim Sugu. ñu ngi leen siyaare ci ginnaaw bu ñu laaj loolu pare ñu laaj nan ngeen gisee màggal gi. màggal gi moom alaa daw me na moom berne yi na lekk yi na ñu ngi taal ñetti mbana. ñaari mën ceeb benn mën a mbaxal suñu jóorin suñu jóorin di sëñ Gumba Jóob ñu ngi koy sant bu baax a baax di ko gërëm di ko ñaan yàlla yàlla balaa déwén yal na gën a yokk yàlla na waañ bi gën a alaadaw me soxna yi gën a dikk ak góor yàlla yi kon kon laaj mu rek comme noo leen gisee màgg gi daal ah, allah wax dëgg yàlla soo ba tey ñu nii ah ñu ngi woon ci durus yeeg yooyu yaa ma gën a xam ne ci waañ bi pamit soo ba tey macha allah dëgg yàlla màggal gi neex na moom ah laf ca sëñ Jéeri Wadane daal amu morom macha allah kontaan nañ bu baax a baax waa a assemble yamin tamit liggéey bi rafet na macha allah wax dëgg yàlla lépp rafet na dëgg yàlla ñaan yàlla déwén fekk ko tatal kenn bañ a manqué barki Seexu Xadim barki sëñ Jéeri Wadane suba. noo noo leen gisee màggal gi daal. waaw di sant yàlla sant yéen def bi sant suñu ñaari waajur yoo xam màggal gi daal wax dëgg yàlla macha allah saa buñ fu ñëwee suñu xaarim dañuy dalal defaral ñu màggal gi ba mu baax di leen sant di leen gërëm di leen ñaanal jàmm gudd fan ak rek wax luñ fi yàq rek waaye léegi yal na yàlla wutal leen ci barke si suñu ñu koy def waaw sant maam njëriñ waalaan bu baax a baax a baax baax di leen sant daal di leen gërëm ñoom ñëpp suñu bàmbaak ñoom ñëpp bu nañ bu baax di leen gërëm bu baax yàlla macha allah. baax na. No! وخير الله تعالى وبركاته mbokki jullit yi mbokki taalibe góor jigéen mag ndaw yéen daayira yi yi nga xamante ni ñii dañoo jóge Touba ñii jóge Ndakaaru ngeen àndandoo boole seen ngëm-ngëm ak seen pastéef gëm sëriñ waadaan fas yéenee àndandoo di yëkkateendoo di dóorandoo liggéeyal sëriñ jéeri ñu di leen xamal ne gis nañ seenub taxawaay gis nañ seenub àndandoo gis nañ seen yéene ak seen pas-pas ak bëgg sëñ Waadaan ak nangoo koo liggéeyal ak yéene ko seen doole ak seenu ñaq ak seen wërsëg ñu di leen xamal ni yéen ñi nga xamante ni nii yéenay daayira bi bàyyi sëriñ jiite leen ak sëriñ Waadaan mii ñu ngi leen di xamal ne ñu ngi leen di nuyu te di leen sant te di leen gërëm te di leen dollee ñaax ngeen gën a am pas-pas gën a mànkoo gën a am yéene gën a laxasaayu ndax ab donga ak deram du tekkeeku ndareeka duñ ko tëral ci koo su bàmmeel te dama koy faral di wax ne ñaqu donga ñaq ci deret lay jóge fa muy jóge dafa sori alal dafa neex cib xol soo boolee joxe sa doole joxe saw ñaq desee la too sab sëriñ dara soo tegee ci yoonu silaatal mustaqima du la fekk ci lenn loo xamante ni nii dana la ko tere ba nga cay am yaraanga desee loo sab sëriñ dara nun nag li nga xamante ni nii moom rek lay faral di wax te di ko wax ñépp bépp donga bu mën a doon bu ne ab donga day wéye ndigal di bàyyi tere nangoo liggéey di jaamu yàlla tey dimbalee sunu yoon wii de ak sunu kër gi loolu moom lañ ci bëgg te loolu ci ngeen nekk nun nag amunu lu may sëriñ jéeri danañ leen ñaanalit ci sëñ waadaan ndaxit doomu gëléem desu ko ñaanal rëy ak gudd fekke daal akuk tal moom lañ leen di ñaanal ak ndimbalal yàlla ak barkeb sëriñ Tuuba ak darajey sëriñ waadaan ba kenn ku ci ne foo mën a nekk sunu borom fekk la faaki xéewalam sotti la ak barkeelle musal ci musiba yeeg balaa yeeg pakk yeeg ndog yi jàmmal la jàmmal sa njaboot ndax damay wax ne benn sëriñ mënut kenn yéen ñii bu dul woon yéen ñi sëriñ xaadim mii la muy man wala mu di ko yéen du ko man du gis ko ko ŋàbbaluk sa talawal bu ko ŋàbbee moo koy ŋàbbal boppam ab sëriñ ay donga lay tiitaroo ab donga ab sëriñam lay tiitaroo lii ngeen koy jox mayu leen ko ko saraxu leen ko ko sëriñ waa daan moo tax ngeen di ko joxe ragal safara bëgg àjjana sëriñ jéeri am na àjjana bu wér léegi laa koy wax sëñ Bamba Amar ma ne ko ab donga na am pastif pastif mooy tax am ngëm-ngëm ngëm-ngëm mooy tax a jariñu sant leen yàlla bi leen yàlla boole ci kër sëriñ Waadaan sëñ jéeri doy na mbër mbër la moo xamante kenn du ko joggi daaneel mbër la moo xamante ni mën na fii mën na fële am na fii am na fële te seen liggéey bi sëriñ waa daan nangu na ko te seen liggéey bii du réer ilaa yow ma yab xasoona noo ngi leen di ñaanal ci barkeb sëriñ jéeri mi nga xamee ne amunu lu may moom yal na leen yàlla mi dimbalee dimbali yàlla mi yokk te ngeen yokk yal na leen yokk ba mbooloo mi gën a ëpp lii te ànd ak kàttan ak wér yal na ngeen am jàmm fii yal na ngeen jam am jàmm fële ëllëg sant nañu leen gërëm na leen bàyyi sëriñ nee na ne ngeen gën a góorlu gën a am pastéef ci liggéey bi su ko dee da ngeen am ngërëmal sunu borom am ngërëmal Serigne Touba am ngërëmal Serigne Jéeri jërë ngeen jëf sant nañ leen gërëm nañ leen fu ngeen jëm yàlla na fa yiwu yàlla jëm barkeb sëñ Touba ak sëñ Waadaan jërëjëf Serigne bi. waaw ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen jégalu si wax ji wax dëgg yàlla sax duy teggeen may wax si samay kanami kilifa waaye muy ndigal rek di ñaan bu baax sëñ Xaadim mi sunu borom mu wéral ko. yàggal ko ba li mu bëgg a liggéeyal Serigne Wadane lépp suñu boroom bàyyi ko fi mu defe ko sagoom ñu ànd kook ñoom man nag samay kàddu du si bëri bu ko defee ren ñun ndaw ñi moo tax xanaa bu may wax ren may wax ndax wax dëgg yàlla képp koo xam ne teew nga si bii bis di fi yàgg teew wax dëgg yàlla day mel ne mag ñin ko àndaloon bu fekkee tamit wàcc da doon jot wàcc nan ndax boo fi ñëwee at moo fi ñëw rek di nga xam koo xamutoon mag moo xam ne da ngeen daan ànd liggéey bi ba yàlla dogal mu wuy ji boroomam mag ñi doo ñoo fi ne kon bu ko defee maam ndaw ñi nga xam ne danoo nekk si liggéey bi ñuy ànd ak ñoom di liggéeyal yàlla ak sëriñ bi di liggéeyal yàlla ak sëñ jéeri waa daan nañ leen bàyyi loolu xel bu baax a baax a baax xam ne nañ leen gën a takk suñ laxasaay ndax liggéey ndaw moo ko man ndax mag mën naa am xelam mën naa jël alalam joxe waaye doolee liggéey ndaw moo ko man te xaalis tamit wax dëgg yàlla ndaw moo ko ëpp mag te mbir mi moom sëriñ bi dama jébbalu si sëriñ bi jébbalu si sëriñ bi wax kese munu fee am jariñ kenn dara lu fi waay jëful doo ko am na leen bañ a naxante xam ne moom liggéeyu sëriñ bi lu si waay defit defaloo ko kenn sa bopp ren ko ko defal kon ndaw ñi nga xam ne ñoo fi ne na leen gën a jaayantewaat bu baax a baax a baax a baax xam ne ñun li nu war suñu digganteeg sëriñ bi bu dee téeméera defuñu si sax ñaar fukk te sëriñ bi moom képp kuy xaar tax mu woola sas la wala mu woola ne la nangam laa bëgg doo ko am li lay maanaam may si sëñ bi mu ñeme la ba tax maanaam lum sémb ànd ko yow mooy sa pëseef ak sa jom ak sa fulla ak sa fayda kon bu ko defee ñun nañ leen góorluwaat bu baax a baax taxkaat suñuy laxasaay bu baax kër Tuubaa gee sëñ bi lu ko ñor la te yitee ma te man maanaam moom dama biir ne sëriñ bi bu demee ba xolam sedd si kër gi ñu liggéey ko ba jébal ko sëriñ bi dinañu ko defar àdduna ak alaxira kon bu ko defee nañ leen góorgóorluwaat bu baax a baax a baax si kër gi sànce bi lu ñu ñor la boo ko defee buñ jàllee fii nañ leen gën a bootuwaat takkuwaat jeune boo xam ne yaa fi ne nga gën a góorlu bu baax a baax a baax xam ne maam sànce bi nan leen si gën a góorlu bu baax ndax màggal gi incha allah ku si yàlla yóbbu ak jàmm war na noo mën a góorlu ba sànce bi egg man daal foofu laay soññee nañ leen góorgóorlu bu baax a baax ñu ngi jégalu bu baax a baax a baax di sant bu baax jërëjëf. baax na jërëjëf sëñ bi yàlla na fan yu gudd yàlla na nga sut say maam aw fan yàlla nga sut sa sa sa waajur góor bu jigéen aw fan ñun kontaan nañ lool li ñu tax a kontaan rek màggal gi la ñuy yow la ñuy ba at yi mu amu nga xam dikkunu ci danoo mel ne ku tonk gannaaw yàlla def na ni ban fi ren yàlla na yàlla guddal saw fan yàlla na la fi yàlla bàyyi yàlla nga sut sañ jéewu fan yàlla nga sut sañ waaraan sa sa sa sa fan ak sa waajuru jigéen nun nag li nu war lépp defuñu ay donga rek lanu danoo war a gembu yaat bu baax laxasu muy góor muy jigéen jar nga laxasu jaay sa kër sax jar nga jaay sa doole sax jar nga kon sëñ bi yàlla na fi yàgg yàlla na fi yàgg bañ di la weri sant nan la gërëm nan la boo nu rek boo nu santul liggéey wala dara rek dañuy daal di xeeb suñu bopp kon yàlla na yàlla guddal fan yi njaboot gu jigéen ge gu góor gi yëpp di taalibe ñu ngi say loxo man Bamba nag maay wax ak yow di doomi Moodu Njaay ca saam yabal dëkk Tuubaa léegi man lu ma yilif rek lu ma yilif ca am ab ab ab ah, ndogal ci yow rek lépp yow laa ko jëbal ci doolay sëriñ jéeri borom waram yàlla na nga nu wal ca dimbalinu yàlla na nga nu wallu ca dimbali nu ca saw fan gud nga tut say waajur aw fan sant na bu baax màggal gi sunu sag ba mu amul at yi danoo tonk lool kon bi mu amee yàlla baax na ak sëñ jëri waaram kon jërëjëf ñoo ngi lay sant di la gërëm jërëjëf sow yàlla na saw fan gudd bañ di la weer ak a weer ajim bokki jullit yi bokki mu ngi leen siyaare ci ginnaaw buñ siyaare Baye Cheikh Sougou mii ñii xaañ na ñi ndaw ñu xam jataay bi lu ko waral nii Baye Cheikh Sougou mii Baye Bamba ay sa waajuram sañ jéewee ko jur kon moog maami sañ xaalim Sougou ñoo bokk waajuru muy sañ jéeri loolu moo tax sëriñ bi bi mu ñëwee mu ne ko fii nga toog doo wàcc may toog wutal leen ma fu ma toog ma toog loolu moo waral lii waaw mat na ko kooku sëñ xaarim sekk la sëñ xaarim mi toog la ko waajuram tudde jox ko kon bu ñu wax ci sëriñ bi mu yëkkati kàddu war na waaye comme ni mu leen ko waxee toogaay bii lu yàgg la mu mel na ñi waxoon li ñu waxoon rek muy su wax lu ko weesu bi ma leen waxee bàyyi Cheikh mii ni mu demee ci kër gi wax leen ni mu demee ci sëriñ bi ba tax sëriñ bi toogaay bi mu demee nii fii sëriñ bi daan toog sëriñ bi jox ko ko kon wan na leen ne yéen ñii kenn ku nekk la nga xam ne sa waajur la war nga ko jox cër ba mat sëkk kenn ku nekk ka nga xam ne moo la mag war nga ko jox cër ba mat sëkk kon loolu la sëriñ bi wane tey moom ngeen yaakaar won na leen aw bind woo xam ne bu ngeen fi jógee kenn ku ne mën na caa jariñ boo gisee sa waajur jox ko cër bi nga ko war a jox boo gisee ki la mag jox ko cër bi nga ko war a jox loolu la leen sëriñ bi woon tey ji jàngal na leen ko kon mu nu fi jógee nun ñëpp nan ko def nan ko ko teg suñu kanam ku mag rek jox ko bi nga ko war a jox bu loolu wee nag ñu dellu si ci li nga xam ne moo waral jataay bi xañ na du gudd bay ba Njaay mii doon wax sa baay Mourou Ndiaye Sam bu nu ma saan wax day réew bi day wax kenn du ma sas maay jëkk a joxe maay ëppale sa baay loola daan wax te loola daan defit déedéet bii bañ koy sos sëriñ bi leer na ko Mourou Ndiaye Sam Ousmane Thiam mire tëgg euh, bay Maguette Sène ak man mii xanaa lu ko rax alaaj Ablaay Jóob te alaaj Ablaay daawul dem mag ñi bari na man naa ko lim waaye na jërul ndax li guddal waaye ñooñ ñooy ñi nga xam ne ñi sosoon dayre bi lañ booba Touba ay dem waay amut lu dul watiir sareet tey sa am na fu la neex jëm yéen ñi am na si ñoo xam ne ñu ngi seeni oto booba dan def bu ndemee sura tey bu ëllëgee nu dem Touba Warane boo liggéey ñëw sama kër boo liggéey nu dem kër gu mag fekk bàyyi daam say mii maa ngi jéggalu nag ci kaddu gii nga xay ne moom yëkkati naa ko te waxuma leen ne leen kaddu gii may wax du sama kaddu kaddu bàyyi daam kii mënoon naa toog ba ñëw waaye biñ jàppee bis bi moo joxe joxe paas mën a bàyyi daam teegaa toog man nga mën dem doonte damay dem ba foofa ma des fay damay dem mag la man su ma taxawee tey di wax bay daam mi daa mënatul a wax wala daa mënatul dem moo tax ma taxaw waaye déyub Tuuba bay daam sëñ moo ko yor ñun ñëpp ci moom la ñu so lu ci waay wax ak kum mën a doon ak fu mu mën a jóge ci moom mi leen daan so kon a tey dem nañ ba mënatut ndax kàddu gi mënatu ko doole ji at mënatu ko waaye nag li ma xamal la sëñ bi li nga xëy ne moom moom la sëñ bi wax ne donga koosu bàmmeel moo koy tax a wàcc bay daam mi ci la ne joxe na sasam ba mu mat joxe paasam ba mu mat mu àndanu ñëw te fii ñi fi ne ñëpp ñii ay baay seeni baay la ñii seen maam kon sant nal ku baax a baax yàlla na ko fi yàlla yàggal sëriñ bi yàlla na la fi yàggal yàlla na la fi yàlla doole yàggal bu baax a baax dama wax ma ne leen sëriñ bi yokk na wàññu dafa yokk ndax euh, sëriñ Bamba mi nga xay ne moo tax ñuy wax tàbbi mu jële ko ci doon ko ci sëriñ jéeri ma ne ba muy dem cëm sëñ Mourou Moustapha suñu maam la àndaloon moom sëñ Bamba Sougou bàyyi sëñ baaraam sugu man moom lañu ma tudde yaakaar naa ne ñoo mag ci ay taalibeem amut ndax sëñ Bamba moo wax ne ma yaa mag ci taalibe bi mu tudde sëñ baaraam bàyyi sëñ baaraam keroog ba muy dem belal ànd ak taalibe ñuy fekk sëñ Ablaat kon kooku yokk na fa mu ko woon moom bàyyi sëñ baaraam ba mu dikkee daf koo yokk ànd ak taalibe yi dem sëñ Ablaat boo sax sax sax yokk jumaa jële noonu yóbbu ñu jóge cee ñëw ban demee ba gisatuñu ko yéen ñëpp ngeen takku topp ci ginnaaw sëriñ xaadim mu mel ne sëñ Bamba jógu fi sëñ Waaraan jógu fi ndax sëñ xaadim mii danoo yokkal ndax moom mi bi mu ñëwee taalib bi yëpp da la jël ànd ak bi yi dem ci seen sëñ Cheikh Saliou kon sëñ bi fa nga nu yóbbu rëcc wuñ ko leen lay jox rëcc rëcc wuñ ci dara ndax fu mat a dugal la lu waay jox bu doon milliard bu ko amee jox la ko wala ñàkku xam nañ la bu doy xam nañ la ci saayir xam nañ la ci baati ndax xam nañ ne li nga lenn loo xam ne si lu dul noonu la ñu si dégg sëriñ bi baaraan amut rawatina sa jëmm ji kon li may wax mooy lii ma doon wax ci mag ñi dama ko daan teewe naa say ñox andi fii ci kër gi ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ñu ngi fii jataay bi bay Bamba Njaay mii doo bay Mur Njaay mën na koo teewe waaye nag loolu lan ko taxa lan ko taxa man walla nu xam ko du lu ñuy fortaat lu ñuy dégg day lu ñu fekke ak lu ñu jëf ma bëgg lii nga xëy ne moom la Ablaye Fall mii doon wax ci laay dëlsi yéen ndaw ñii ngeen fexe ba saa bu ñu wootee tee ci kër sëriñ bi ngeen ñëw bu dee liggéey la ngeen ñëw bu dee bu dee dee ngeen ñëw alaaji lay mii maamam bàyyi ma seer lay fii la nekkoon la maam sëriñ daan wax ak ak di ko ak ak ak di ko jëf daan ko fekk kon ma bëgg ngeen góorgóorlu yéen ñëpp nu dolliwaatu laxasaay fi nga xam ne fi la maam yi nekkoon sun baay yi newoon fi yéen ndaw ñi àdduna bañ leen fëkk wutum koom bañ leen lépp loo xam ne sëriñ bi soxla la ngeen taxaw ci la leen di man li ci ëpp nag mooy dee leen fekke jataayu mag yi di fekke ndaje yi fu mag ñi teggee seen tànk yéen ndaw ñi yéen a ko fay tekkat bàyyi ndaam mi mi ngi woon suñu kanam doon tey mënatuloo lijjanti mënatoo dem man mi bu ëllëgee dootuma lijjanti dootuma mën a dem bàyyi sañ sugu saan bu ëllëgee noonu te daanaka booy seet ñii ñoo ñoo fi ay mag ak kon ginnaaw mag ñi wene yéen gone yi takku leen takku leen dayre bi ngeen yore ko seen bopp mën nanoo jox suñu doole waaye mën nanoo jox suñu alal waaye amatuñ doole jun liggéey amatuñ leneen kon nag bu ngeen jógee fii na ngeen dellu takkuwaat yéen daw ñi ni ngeen ko waxee fii ngeen laxasaay yoon ñëpp saa bu ñu wootee lu nit jàppoon na ko bàyyi ñëw fekkee ku ngeen waxtaan nun bu dee doole lu am su bu dee doole yéen koy jëf bu dee alal yéen ko ëpp leen nun lu am daanu ko barkeloo ci yéen ñu ngi leen sant ñu ngi leen di gërëm soxna yi ñu ngi leen di sant sëriñ bi ñu ngi leen di gërëm ndax soxna yi kenn magu leen yaay ngoone saa mi ngi fi bu sa bay moom ñi ngi fi ñoo ñëpp ñi ngi fi ñi nga xëy ne sax dañ daan ànd ñoom te yàlla dogal saa borom sans borom jël leen fi na nga leen ñaanal bu baax a baax yàlla yóbbu leen ci àjjana yi gën a kawe yàlla buñ gis ci biir bàmmeel lenn loo xam ne lu ñu ragal lu ñu ragal la maam Faati Ndaw ñeew xare la woon seen kanam la àndoon gisatuñ ko ak ñeneen ak ñeneen tun ñëpp lañ leen kon daal wax ji mën naa cee wax lépp loolu waaye nag sëriñ bi ñu ngi lay ñaanal nga yàgg fi Baye Cheikh ñu ngi leen di ñaanal ñu ngi ñaan daal ngeen ñaanal taalibe yi ñu amum koom ndax loolu yi nga waxoon ne ab taalibe bu ko bu ko sëriñam fekk ci lu muy tere sëriñ Xaadim mii de yaakaar naa bari lu mu teqale ab taalibeem ñi koy yaakaar kenn koo xam mas nañ ko caa woone ko kaay diw ma nga ci lu ko lu neexul yàlla de wala téye ko yaram ñëw ñëwal lijjanti ko gisuñu ko nun kon nag loolu na ngeen ci gën dolli koo góorgóorlu baax a baax ngeen noppa ci seen bopp noppa ci sëriñ sëriñ bi it nag góorgóorlu ba ñaanal leen bu ngeen amee bu ngeen amee wér am doole ju ngeen di liggéeye am warsa bu ngeen di bu ngeen di joxe yett yi rek moo fi ne sëriñ bi na nga ñaanal gone yi ba ñu am ko mag ñi nag moom na nga leen ñaanal surtout ndax wéneñ ba noppi soxlaatuñu soxlaatuñu xaalis lay sant ñu leen di gërëm maa ngi sant ñëpp di leen gërëm lu ci ci dëng na ngeen ma ko baal xam ne doomu aadama moom matul li ciy dolli kutu moo di man mii bari naay wax naqari naa deret maa ci gën di gone waaye nag lu ma leen wax da ngeen wécce kon loolu it maa ngi leen koy jéggulu yéen ñi nga xam ne yéen laay àndal maa ngi tuubal yàlla di tuubal sëñ ngeen baal ma ko jërë ngeen jëf wasalaam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 waaye di leen nuyu itam ci njabootu kër sëriñ jéeri waareen yëpp di jël nuyoo boobu di ko teg ci loxol sëriñ ndaam sëy di ko jox jël nuyoo bi di ko teg ci loxol sëriñ sëriñ bi nee na mi ngi leen nuyu di leen sant di jël nuyoo bi di ko teg ci loxol Baye ndaam sëy mu tegal ma ko ci mboolem njaboot gi yëpp mu teg ko ci nuyoo boobu ci njaboot yëpp mi ngi leen nuyu di leen xamal ne it nag di leen xamal ne wax ji nag wax ji daanaka moom mënatuñ koo guddal wax ji nag daanaka mënuñu koo guddal ndax euh, liñ war a wax yépp daanaka sunu waajur yi wax na ko ndax nee na li mu war a wax yëpp sunu waajur yi wax nañ ko mooy ak ndénkaane nee na wax jooju mooy ak ndénkaane ci diggante taalibe ak sëriñam ci diggante taalibe ak sëriñam waaye bi diggante taalibe ak boro <coughs> ak boroomam waaye nee na wax jooju diggante taalibe ak moroomam ak boroomam waaye digganteem ak moroomam waaye tamit diggante ak wax jooju diggante taalibe ak moroomam xanaa lu ñu tas wala lu ñu yaatal waaye lépp ëmb na lépp nee na xanaa lu ñu tas wala lu ñu yaatal waaye wax bi ëmb na lépp kon nag ñoo ngi koy sant bu baax. waaye nee na kon ñu ngi leen di sant bu baax a baax a baax. ndax njaboot gi njabootu la. ndax nee na njaboot gi njabootu sëriñ Jéeri Waadaan la. baat bi itam benn la. kon bu ko yëkkatee. nee na kon bu ko sunu baat a nga ca biir. nee na seen baat mi ngi ci biir. sunu ndigal a nga ca biir. nee na seen ndigal mi ngi ci biir. sunu cant a nga ca biir. nee na tamit seen cant mi ngi ci biir. waaye xanaa dellu feddali rek. waaye nee na bu di ko teg ci loxol sëñ daam sëy di ko teg ci loxol Baye daam Baye daam sëy ak sëñ waaram jaw mi nee na ak sëñ waaram jaw Baye sëriñ sugu mi nee na ak Baye sëriñ sugu mi ak sëñ daam mi nee na ak sëñ ñi mu àndal ñëpp nee na ak ñi mu àndal ñëpp rek maar mi nee na ak sëriñ maar mi ak mag ñi ngeen àndal ñëpp ak mag ñi ñëpp rek ak di góor di jigéen nee na di góor di jigéen sëñ Touba Ndiaye ngi ngi nii waaye ñu ngi leen di sant. waaye nee na ñu ngi leen di sant bu baax ñu di gërëm bu baax. nee na ñu gërëm bu baax. ndax jëf ji. nee na jëf day jëfi pas-pas. nee na day jëfi pas-pas. jëfi yéene. nee na di jëfi yéene. boo seetee ba mu tàmbalee ak tey. nee na bu ñu xoolee ba mu tàmbalee ak mat na ab diir. nee na mat na ab diir. waaye waxtu wu ci waaye nee na waxtu wu ci nekk. seen pas-pas day gën di dëgër. nee day gën di dolleeku. seen jàppit day gën di dëgër. nee na seen jàppit day gën di dëgër. loolu ngir jëm yàlla ak yonentam a tax nee na loolu yàlla ak am yaakaar ci kër Serigne Jéeri Waadaan nee am yaakaar ci moo mottali moo mottali loolu kon nag ñoo ngi leen di ñaanal nee na kon nag di ñaanal njaboot gi yëpp di ñaanal njaboot fi waay man di nekk yaakaar jooju nga yaakaar ci sëriñ jéeri nee na maanaam yaakaar jooju nga yaakaar seen jéeri yal na ko yàlla mott nee na yal na ko yàlla yàlla mi ko man nee na yàlla mi ko na ko defal na na ko defal ndax xam nañu seen pas-pas nee xam na seen pas-pas ci sëriñ jéeri ci seen jéeri ba ci sëñ bamba ba sëñ bamba ba ci sëñ waadaan ba sëñ waadaan da ngeen koy gën di fedd nee di feddli waaye mas ta yolu mukk nee na dañ koy loola ñëpp xam nañ ko nee na loolu ñëpp xam nañ kon jërë ngeen jëf nee na ngeen jëf xam ngeen ne at yii ñu génn. nee xam na ne at yii ñu génn. jafe na lool. jafe na lool. xat-xat yi bari na. nee yi bari na. waaye nag loola. waaye nag loola. taxul. nee na loola seen digganteeg sëriñ bi. seen digganteeg sëriñ bi. dara des ci. nee na dara des ci. la ngeen war a jàpp ci sëriñ bi. nee na war jàpp ci sëriñ bi. jàpp ngeen ko. jàpp nañ ko. la ngeen war a jëf ci sëriñ bi. li war a jëf ci bi. yéen a koy jëf. nee ñoo ngi koy jëf. ren jii sax. nee na ren sax. sama xel dafa nekkoon ci. nee na dafa nekkoon ci. ñu wàcc ay kaamil rek. wàcc ay kaamil. jàng ay xasaayit. jàng ay xasaayit. def ay istixfaar. def ay istigfaar bu ñuy jullee tisbaar yeewi mbooloo mi nee na bu ñu jullee tisbaar yeewi mbooloo mi waaye mu mel ne mbooloo mi waaye mu mel ne ni mbooloo mi jotaay yii jotaay yii moo leen gënal moo leen gënal ma fekk leen ci nee na mu fekk leen ci ndax man lépp luy seen mbégte ci sëriñ bi nee na moom lépp loo xam ne mbooloo mi mooy seen mbégte ci sëriñ bi te mu dëppoog lu neex yàlla akub yonentam te mu dëppoog lu neex yàlla akub yonentam loolee damay neex ba man caa ànd ak ñoom nee na loolu da da koy neex ba man caa ànd ak ñoom kon loolu mooy jotaay bi nee na kon loolu mooy jotaay bi gis naa ne itam liggéeyu kër sëriñ bi gee ca Touba. nee na gis na ni comme liggéey yi nga xam ne moom moom la ñu sëriñ bi ci Touba. sama dénkoon leen ko. nee na tan ñu ko. ngeen nekk ca. nee na tan nekk sax. di sa góorgóorlu suba ngoon. di sa góorgóorlu suba ngoon. ba ci fan mujj yi rek. ba ci fan yu mujj yi. ma feddliwaat leen ko. nee na mu feddliwaat ñu ko. ngeen laxasuwaat. nee na ñu laxasuwaat. nekk ca. nekk sax. ba yaakaar gën caa kawe. ba yaakaar gën caa kawe. loola pas-pas loola pas-pas la. leneen la ca topp itam nee na la ca topp itam njaboot gi nga xam ne njaboot gi nga xam ne ñu ngi ci biir réew mii ñu ngi si biir réew ak ci biti réew mii ak ci réew mii seen yéene seen yéene ak seen pas-pas seen pas ci man nee na si moom si kër gi si kër gi tax ñu jaayante tax ñu jaayante ba wut ba wut daamar juñ mën a doxee yitte yi ba wut daamar yoo xam ne man nañ cee dox yitte yi andil ma ko barki démb nee na indil ko ko barki démb kon mel na ne nee na kon mel na ne yëgunu naqari jamono ji naqari jamono ji danaa la ñi jëf loolu yëguñu ko ak xat-xati jamono ji nee na ak jamono kon sëriñ bi lañuy xool nee sëriñ bi la xool bëggug sëriñ bi la ñuy xool sëriñ bi la xool kon nag nee na kon nag yàlla nañ yàlla nañ ci daje ngërëmal sëriñ bi nee na kon yàlla nañ ci daje ngërëmal sëriñ yàlla nañ ci daje ngërëmal suñu borom yàlla nañ ci daje ngërëmal suñu borom képp kenn ci yéen ku nekk. nee kenn ci ñun ku nekk. la di yéeneem. li yéeneem. ci yokk ci yokku. akuk mucc. akuk mucc. ci boppam. ci boppam. akuk njabootam. akuk njabootam. akuk wér. akuk wér. yàlla na ko yàlla defal. nee na yàlla na yàlla defal. te yàlla defal na ko. te yàlla defal na jëf. nee na jërë ngeen jëf. nañ fi teewaat na ngeen déwén. yàlla na ngeen déwén. te yàlla soog yokk sutura si. nee na suñu borom yokk sutura si. waaw kon ñu def ñaan ak